La télévision a pour but de transformer le téléspectateur en consommateur. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs de Dakarnet, bienvenue à toutes et à tous euh, sur votre nouvel numéro Grand Buzz fii ci biir Dakarnet dañ koy amalee daal di ci àndoog ak yéen où que vous soyez qui que vous soyez bonjour ou bonsoir sans dépendre de quel côté du globe vous vous mais également di leen bu baax baax ci àndandoo bu rafet bi ngeen ànd ak ñun ak lépp spécial jàkkaarloo bi dafa doon jàkkaarloo boo xam ni eh, bu amee it eh, bëriwul li muy am ci Sénégal muy plateau boo xamante ni plateau bi bu spécial lay doon également di boo xamante ni plateau bu tàng jër lay doon tey nag eh, plateau bi plateau la boo xam ni lu waay neex def ndaxte ki ma invité déjà moom dafa firi déjà moom dafa dafa dafa doon koo xam ni Sénégal yëpp ko bëgg dafa doon koo xam ni bu waxee ñëppay ñëppay bég ah. ndaxte nag xam ngeen ni balaa ngay bégle day fekk nga bég ba noppi moom fu foo ko gis mi ngi ànd ak mbégte foo ko gis mi ànd ak ah, li nga xam ne moo di contentement raison pour laquelle à chaque fois muy bégal téléspectateurs yi à chaque fois muy bégal ay soppeem à chaque fois muy bégal ay fansam à chaque fois muy bégal waa géej waay gam dëkk à chaque fois it euh, kooku ñu koy euh, wax ki nga xam ni moo di le phénomène de Guédiawaye tey nag ki ñu dalal mooy Bou Siteu Bou Siteu nag mi jóge ci euh, combat fan yi daal ci am ndam bu bu la daal daan ba noppi am lu mu ci rax léegi nag loolu mu ci rax tey moo tax moo moo di digganteem ak waa euh, Géejawaay digganteem ak ay nitam parce que à chaque fois euh, buñ koy seetaan dañu dégg muy lim ay nitam te nit ñooñu euh, yaakaar naa ni nit ki lépp loo ko ji rek na doon lu baax raison pour laquelle moom a chaque fois bu tàmbalee ngeen gis mbégte gis contentement mais également gis xol bu rafet ak xol bu yaatu ci moom ñu bàyyi ko mu nuyoon teg ñi nga xam ne ñoo koy seetaan bu Siteu sama waa ji lay siyaare Baye Fall Baye Fall di sant waa Géejawaay bu baax di sant maanaam international te parce que Bou Siteu boo ko xamee nga xam Bou Siteu Bou maanaam Bou international la waaw di nuyu mbay Diagne bu baax. Uh-huh. international maa ngi koy uh-huh. ak Daouda Mbaw mais bu dafa mel ni nga pare émission ba micro sax takkoo xoolal ñu nga takkee micro waaw waaw maanaam micro soo gisee ñu takkee ko nii. moo lay wane maanaam Bou Siteu mooy loolu amul lu muy bàyyi xel. waaw waaw amul lu muy bàyyi xel maanaam <laughs> yaa ma gën a xam di bëggee àdduna ñëpp na di bëggee waa géejawaay bu baax bi ma jógee di bëggee maanaam géejawaay dafa yaatu waaw ku si si mel ni caaro yi lew xam nga sama mafia bi si mel ni borom daaru uh-huh. nekk suma doomu yaay koo xam ndeysaan démb la ba mu jàppee ba léegi bàyyiwul mu doom la taal xam nga ñëw ànd ak man ñëw fii mais mais mais bu est-ce que xam nga ni Sénégalais yi dañ la bëgg. waaw loolu moom dëgg la dafa parce fan yi moom boo xamee Boucher nga xam ne Boucher li mu def ci ci fan yi rek si at bii nii rek li ma si def. maanaam xam nga sénégalais yi di ma si bégee di ma suivre bu baax a baax non ni mu demee noonu bayre bi ëpp wala wala ni mu demee noonu non bayre bi ëppul te parce que Bou dafa nekk koo xam ne maanaam xale la xam nga nekk phénomène de géejawaay nekk ndaanaan mhm. waaw maanaam damay béggale yenn saa yi damay def émission xam nga di bégale mhm. xam nga rek moo war a sénégalais sax bëgg ma waaw xam nga mooy loolu nekk nit koo xamante ne xam nga du ma wax tamit lu ñu may xeebee uh-huh. waaw maanaam xam nga dund jàmm soulagé mm-hmm. waaw di bëggee bu baax suma doom yaay koo xamante ne ndeysaan léegi bu si te léppam si Ketchup la nekk ah bon képp ku bëgg sama combat si Ketchup ngay jaar ah. maanaam doo jékki-jékki rek woo ma nii comme maanaam bu si dama dépassé yenn niveau yi te parce que niveau bi ma nekkoon xam nga daan am ñu may woo may am combat xam nga di ko kii wala ay yooyu léegi ku ma léegi si Boucher ngay jaar Boucher mooy sa waaw Boucher mooy sama barrage mooy sa ménagère waaw mooy sama ménagère mooy sama lépp léegi uh-huh. waaw non Zalba nag mooy sama ménagère mais maanaam maanaam ku si nekk da ngay am kilifa ku si mel ni Daouda Mbow ñooñu su may kilifa lañ <laughs> mais yow yow bëggal ma seen bopp mais dafa mel ni yow da nga bëri kilifa waaw dama bëri kilifa ku si mel ni Cheikhou Kouyaté rek te instant yi nii rek bokk na si ñoo xam te nii tey jii rek <laughs> boo léegi buuse rek nekkutul lépp looy def rek da ngay jaar man léegi ay publicité yëpp nit ñi dañ may woo si ay publicité ah waaw mais yooyu noonu yëpp buuse la tey yooyu boo ba am mhm. ma nekk lutteur mhm. dem ba ay nit di ma soxla ma leen di publicité ay mhm. affaire ku si mel ne Zador rek bérki demaan si doon def publicité bu doy waar te la <laughs> tey ah buuse fu mu demee ba may dugal ci yenn yi ne ma du lamb kese te parce que wax na dëgg du lamb kese uh-huh. ta parce que maanaam du lamb ñaari combat man def naa neuf combats. neuf combats. waaw ñaata victoire. am sept victoire am ñaari défaite. kan ak kan nga daan. waaw maa ngi daan ku si mel ni jadi jadi maa ko daan. nëb maa ko daan. Uh-huh. Gambien bu Rewas maa ko daan. Uh-huh. ku si mel ni tamit booy Diop maa ko daan ak booy Texas. Uh-huh. daan Gambien bu Rewas. daan bu ndaw berki Demba Ndiaye berki Demba Ndiaye ma tegaat si Malick Ndiaye 37. waaw mais kay d'accord voilà. Euh, jàmbaar Malick foofu seen combat bi daa mel ni yàggoon na de yéen bi mu taxawee. waaw combat bi parce que si coronavirus wala taxawoon. waaw waaw xam rek boo xoolee suñu premier signature. ma nekk si lu ndaw. mu nekkoon ci coronavirus bu njëkk ba. xam nga mu ah. taxawoon. Ah. affaire yi métti ak couvre xam nga. te lépp rek mais entraînement yi nu ko doon dundee euh, euh, raison que xam nga ni corona bi ñëpp ko yëg. corona bi ah. métti woon na ci seen côté. métti du mbëri tamit ngeen préparé lamb ba ba ba desul lu war a sëgg euh, bi waaw corona bi gis nga ñu ñu demal bay nekk di xamar di waaj ay di maanaam ay at lañ ko waaj ñu mm. jàpp la vingt cinq juillet bi mm-hmm. xama rek ndogal ñëw ba si jouru combat bi la jour la vingt cinq juillet bi mm-hmm. ñu ne waat mbas bi moo ñëwaat si jouru combat boobu maa ngi waaj combat bi ay midi ñu wooñu nañu mbas bi moo tax xam nga service d'ordre bi xama rek affaire yi yàqu mu metti trop gis nga sama jooy ma sa jooy si raw noonu. waaw man loolu moom loolu xam nga rek lan moo la metti woon ba ngay jooy foofu. mais li ma metti woon ba may jooy muy ngay waaj combat boo xam ay at nga ko waaj deux ans presque. Uh-huh. ñu jàpp la vingt cinq juillet bi ñuy dem bay waaj ba ci jour combat bi. gars yi na chef si door yow imagine toi ngay waaj combat te ko xam sama combat man nekkuma ay combat mbër yu ndaw yi nii. man sama combat maanaam événement la si biir géejawaay bi. togg ay regroupement rey nag. ku ci mel ni buuse jàpp ci combat bi ku ci mel ni Seex Guyaate tamit yónnee ma xaalis bu bëri mm-hmm. lépp si daaw dam boobu la jaar ban année nga dugg ci làmb man maa ngi dugg ci làmb 2016. 2016 2016 laa dugg ci làmb. 2016 nga am licence arène wala. waaw moom laa am licence arène 2016 mbapat gi mbapat gi doon naa bëre mbapat amoon naa licence simple sax. di toj mbapat yi naa fa. ni may gisee ni fu ma man ma garaaw. am nga ay drapeau kon mbapat. ay sax moo ëpp drapeau ah bon man Youssouf bëri ay trophée laay bëree. ay trophée rek laay bëree sama gàll bu bu ma fa ma la wane samay trophée da nga naan non non. yes man parce que Serigne Touba mbabat. mais dama lay ma génne la trophée yëpp. génne la sama coupe bii ma mujjee daan Malick Ndiaye 37 maanaam trophée yi nii laa ko tegale sama gàll. yee man bu duggee da nga naan sax bu muy kii da nga naan da nga naan lii mbër bu mag moo ko def tak gis nga maa ngi nii. Euh, bi ngay dugg ci làmb bi ngay dugg ci làmb la mu dugal ci làmb da am idole bu doon bëri nga nga fan ko dugg ci làmb wala dafa wala dafa jékki-jékki rek nekk sa passion boobu. waaw li tax ma dugg ci làmb muy maanaam saaka jor. saaka jor waaw maanaam saaka jor maanaam man su ma bëggee làmb sax saaka jor moo tax. Mhm. te parce que moom laa doon àndal ba mu nekkee xale di kay topp xam nga suy dem géej xam nga rek. temps itam ma nekkoon xale boo xam temps amaguma woon fas mm-hmm. xam nga ma daan liggéey si fas saa ko jox mu nekkoon koo xam dafa ma bëggaloon boppam ah, waaw man rek maa doon liggéey maa doon di liggéey si fas saa ko jox ah. xam nga rek mu nekkoon mbër bu demee entraînement man lay jox fas bi ma nekk foofu di liggéey xam nga di job xam nga ba affaire bi nag dugguma amour bi dugguma mm-hmm. xam nga ma ne nag man force moo la damay nekk mbar may topp saaga nekk xale bu ndaw di koy topp xam nga suy mhm. dem entraînement may nekk fa di bërantu si xale yi ndaw yi di mhm. bëree xam nga mhm. ba dem ba affaire bi dugg ma nag maanaam dama ko topp ma màggaale ak moom daal alors ça te fait quoi ça te euh, euh, la te am na ñoo xam ni am nañ plus de vingt combats kenn xamu donc donc donc yow lan loolu lay def boo yëgee loolu lan lay def nit ñi di la wër ñi di la woo téléphone te neuf combats rek nga am ndeysaan dëgg la maanaam sant yàlla maanaam loolu noonu yëpp sant la te parce que am na mbër yoo xam ne ñoo ma jiitu si làmb foofu tey jii li may mobiliser du ma wax sax gis nga duñ ko mobiliser waaw mooy loolu te loolu loolu yëpp maanaam sunu borom la Mhm. suñu borom mooy xool benn xale boo xam te ne di yorul sax benn boo ko rombee sax da nga koy teg jour mhm. wala nga teg ko beneen xam nga moo loolu te gis nga mais mais mais lépp yàlla la mais yaakaar naa ne sénégalais yu bëri eh, ñu ngi la découvrir ci coronavirus bi waaw waaw ci corona bi nag découvrir waaw si corona nag la ma sénégalais yi gën a ràññee gën a xam te parce a moo loolu gis nga corona bi métti woon couvre-feu bi mhm. gars yi woo ma si woon ma si doon def émission xam rek gars yi di ma laaj noonu na ma cas importé mooy lan ma leen cas importé mooy cas bi gën a garaaw xam nga bu dalee faatu nga yàlla wax xam nga maanaam loolu nekkul loo xam lu toj Sénégal toj international uh-huh. maanaam gis nga TikTok bi uh-huh. ku ne di ma TikTok ay ñii nekk ay Europe ñii nekk ay Suisse États-Unis d'Amérique uh-huh. xam nga fu nekk gars yi nekk fa di may silence nga di ma silence ku su mel ni duudu duudu meen duudu meen bokk na si ñi ma silence rappeur yeeg ah. ñi ma doon silence silence <laughs> xam nga gars yi di ma salanse kon loolu moo lay wane man maanaam am na lu ma liggéey Sénégal. xam nga def si sensibilisation bu doy waar. def si nekk def si sensibilisation bu doy waar. nekk camp bu la delee faatu nga yàllaaw. Uh-huh. xam nga nekk camp communautaire. boobu la dalee sa lamañ bi du yëngu dangay ngay bëgg a sax xam nga. Uh-huh. xam nga am naa am lu ma si wax loo xam luy sensibiliser luy ragaloo Sénégalais. maanaam nekk mooy ñëwoon di def affaire comédie. te parce que moo la dama wax loo xam te ni day ragaloo ñu bëri te parce bu dama ne bu la dalee faatu nga yellaawo te effectivement noonu la demee woon waaw maanaam ñu bëri nag fagaru mm-hmm. xam nga yaakaar am na ñoo xam te dañoo yaakaar li ma wax sax noonu la mm-hmm. te ndeysaan man mii di wax loolu sax man xaw ma woon la te parce que te li doon wax du euh, noonu non c'est sensibilisation bi nga xam ne def nga ko ci coronavirus bi vraiment euh, mm-hmm. yow président daf la waroon woo Euh, décorer la parce que euh, sensibilisation la bu jàll vraiment ku nekk def na sensibilisation mhm. mais yow ni nga ko defee sa bos tarkal la sa bos da nga ko def dafa garaaw te ba léegi nii gars yi ñu ngi koy non ba léegi ba ba léegi ñu ngi koy enjoy laa la wax ba léegi ñu ngi koy dund daal ci ci ci maanaam message bi jàll na mhm. te sénégalais yi bëgg nañ ci euh, en tout cas en tout cas yàlla yàlla na si jàmm yàgg da nga doon da doon ndaw nekk ci yoon fan nga teg sa bët waaw fi ma teg sama bët maanaam moo loolu maanaam am na feneen fu ma teg sama bët. Mhm. am na feneen fu ma bëgg a yegg ci làmb. Mhm. mais ndeysaan gis nga maanaam man tey jii gis nga bëri naa neuf combats mais tey jii gis nga. am na am na am na catégorie boo xam te ne maa ngi fa si ñoom aada faas ay tafa mbër boo xoolee rek la mu ndax ñooñu tey ji ëppalewu kenn ëppalewu ma si victoire man la ma lay wax uh-huh. mais tey ji dafa am loo xam te ni moo moo moo manqué moo tax mënu ma egg foofu lan la moo la muy maanaam maas bi ok waaw maanaam ni ma toll quoi tey jii am na ñoo xam ne bu ñu ma doon tëggal maag Ada Fass mhm. waa CNG sax mun nañ bañ mhm. mun nañ ne non Ada Fass moo ko sàcc poids mhm. te maa ko ëpp ay victoire ça ma fi may waxee mais maanaam dafa am loo xam ne moom manqué muy doole bi te loolu bëgg naa gars yi jàpp ci waaw bëgg naa gars yi jàpp léegi léegi pour gars yi jàpp ci nan la ci gars yi mën a jàpp ba ba doole bi ñëw mais borom doole mais mais mais man damay xool yéen mbëru parcelles yi xoolal tey maanaam ñoom seen tukki nu mu leen yombee dañu yokk ñu doole ñëw xoolal ndongoloo bërki démb lañ dugal fotom si benn groupe boo xam ñoo ko bokk ndeysaan maanaam maar macha allah te sam wàccay combat bi la demoon États-Unis non yow dem yokku doole kon man gars dañ ma war a jàppale nonguloo dama ko xool maanaam am fer rek waa xam ne maanaam affaire yi du fii affaire yi ci kaw la affaire yi kon gars dañ ma war a teg loxo man uh-huh. gis nga man ba neuf combat ta bëre te ba tey mënu ma kii te parce que yenn mbër yi ñuy man du ma ko naan du ma naan ay dinaa ay yaram bu naturel nga yore waaw yaram naturel te parce que laa mm-hmm. man dañ may tere sax di jël yenn kii ban man soo xool 96. 96 xale bu ndaw laa. waaw xale ngi nekk 96. vraiment 96. Euh, xale nga xale nga nekk ci yoon am 9 combats. Euh, ñaata ñaata 7 victoire 2 défaites 2 défaites. waaw Ardo moom a daan ak caatu Rebeuss. yaakaar naa ni yaakaar naa ni euh, xale la bu nekk ci yoon bu am jom mais également xale la bu am talent ci li muy def muy wàllum bëri bi kon yaakaar naa ni yoon la également nu jàppale ko ci yoon bi nga xam ni. fa ne donte adduna nag. Euh, ay jàppalante rek la. jàppalante la nit ñi dañuy jàppalante. góor jàpp si góor góor jàpp si góor góor yegg fa yàlla. Mhm. acca noonu la demee euh, léegi. Ah. làmb ji kenn ku nekk am nga si koo xamante ne danga naan kii xalaatuma bari ak moom. Mhm. yow kan nga xalaatul bëril ci làmb koo xam ne yow xalaatoo bëri ak moom maanaam. maanaam koo xam ne xalaatuma bëri ak moom. ci làmb waaw waaw. koo xamante ne xalaatuma bëri ak moom ci làmb moom te làmb boolewul muy Pokola. waaw Pokola moom nekk na koo xamante ne moom maam làmb boolewuñu. Mhm. waaw Pokola. Pokola jarbaatu Ama Balde. jarbaatu Ama Balde. waaw kooku te parce que maa moom dund nañ loo xamante ne nii maanaam du du du làmb. Mm-hmm. xam nga rek ok sa waay la. suma waay la Pokola mais mais yi temps yi da nga am xaalis de. non a ma dara xam nga rek bu yaa ma gën a damay taxale rek. yow mm. gis nga. maanaam benn combat ma waaj ko deux jours def ñaari open press. waaw moo tax man la nga xaalis. waaw man du xaalis dañ may jàppale rek ku si mel ni Ketchup Mm-hmm. combat bi maanaam seetaanuma ak Daouda Mbow mm-hmm. international ak mm-hmm. Zara jabar Cheikh Kouyaté maanaam seetaanuma sama combat ku ci mel ni maam seex tey su ma demee ba xam ay Daouda Mbow international ay Cheikh Kouyaté ay Zara jabaru Cheikh Kouyaté tey su ma demee ba xam ñooñu xam link yooyu ku si mel ni maam seex la nekk saalu parcelle bi joor uh-huh. xam nga euh, maam Cheikh dama koy sant bu baax lépp moom la tey moom fa laay entraîné gis nga te jël boole loolu yombul. Uh-huh. waaw loolu yombul kon. Eh, mais ma bu baax a baax. Mm, mm, soit d' entraînement lay am par dama am benn surprise moo defal. Eh, koo xam Boucher. waaw salaamaaleykum. Eh, yaa ngi en ci dakaar Net ñu dalal ki nga xam ni moo di sa waa ji ki nga xam ni moo di Bou tey ji boo doon wax Bou Siteu lan nga koy wax. waaw salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di nuyu ñi koy seetaan. Uh-huh. di nuyu fansam yi. Uh-huh. di nuyu soppeem yi di nuyu yéen waa Africa 7. Uh-huh. Euh, Dakar net Dakar net. Dakar net waaw maa ngi nuyu yéen waaw bu sama rakk la bu sama rakk la. sama xarit la. Euh, koo xam ne xam nga o na ma cër respecté na ma am na fu ma teg. du dugg ci dara lu ma yëgul. lu def dara lu ma yëgul. Mhm. am na fu ma teg ba ma yëg ko. Mhm. mu nekk champion nag. waaw mu nekk xale waaye gëm boppam. Mhm. ba pare du ragal. Uh-huh, li ma gën uh-huh. neex ci moom mooy drapeau géejawaay bi moom. moom kese sa dara moom kese man ñeme naa koo jox mu porté ko dugg fu ko neex. ok parce que am na fit bi. am na jom bi. gaynde la. ba pare du ragal amul. géejawaay ba mu daj amul benn moroomam bu ko yàq. ci ah waa ci biir émission bi léegi dañu dégg moom Bou Siteu mu ni képp kuy képp ku koy doxati komba ci yow lay jaar loolu ça te quoi. waaw loolu daf may loolu daf may neex. Uh-huh. parce que bu bàyyee ñëpp. Uh-huh. ne ne su bëggee combat. Uh-huh. ku ko bëgg soxla ko ci man ngay jaar. loolu daf may neex ba pare du ko rëccu ndax. tey ñun dinañ ko ci dinañ ko teg suñ ko war a teg te dinañ ko dinañ ko jàppale niñ ko war a jàppalee ba ah. amul benn moroomam buy fayeeku lum dul fayeeku wala am lum dul am ah. parce que làmb mm. yàggul te làmb fi mu nekk nii dafa toll foo xam ne da ngay demee sa maay mm-hmm. dañ naan yow la yow la waaye gaa yi ngay gis nii yëpp boo daanoo dañ lay tege ne jël sa morom ok moo tax foog nga jéem a xool sa carrière nga defar ko nice ok ba jéem ci sa bopp ndax fi mu bokk moom fi dëkk bi mu nekkee muy géejewaay. Mhm. dafa xat ba pare dafa bari ay ndaanaan. d'accord. te ndaanaan bu ci ne bëgg ngaa raw beneen ndaanaan. ok mais ku xam bu ku xam ku xam euh, ku xam bouger xam ko ci sociale ku xam bouger xam ko ci def teranga Euh, ku la xam vraiment xol bu rafet la la xamee ñu dégg léegi mu am lu mu wax loo xamante ni vraiment euh, yaakaar naa ni touché ne sénégal yëpp mu di mu limal ñu ay mbëri yoo xam ni bokk na ci ñoom euh, bokk na ci seen catégorie mais nee na mënagu fa dem parce que ku ko xool ak ni mu toll ak ñoon ñu toll day def benn handicap nee na lan la nit ñi di xaar pour génn ko mu dem Europe entraîné ji wuti doole loolu la nga ci la nga ciy indiwaat. waaw loo gis rek wax ko barki loo gis rek. Mhm. mu euh, nànk-nànk. ok tey xale la def na set combats. neuf uh-huh. combats. neuf combats sept victoire am na sept victoire uh-huh. mi ngi def ay preuve uh-huh. tukki kenn moomu ko yàlla moo ko moom. ok ba pare tubaab bi ay preuve rek la ñuy xool. d'accord fi mu nekk nii day jël yoonu bu yoon yoon bu baax wut ay contrat yu baax signé. d'accord incha allah rabbi fépp fu mu bëgg dem dina fa dem parce que bu nekkee ci yoon rek. di wax lu baax. Mhm. di entraîné di lekk lu baax di tëdd di nelaw. Mhm. rek léegi nga gis fu mu nekk nii incha allah fépp fu moroomam di dem rek mu dem fa. ndax tey am na ay mag yoo xam ne am nañ expérience bi. Mhm. te incha allah rabi dinañ ko ci jàppale. Euh, moom si Siteu nekk xale bu ndaw. Euh, nekk ci yoon donc ban message nga koy lancé pour ñu tëj li nga xam ne moo di appel bi daal di continuer émission bi. waaw xale la. mi ci yoon li ma koy wax rek mooy mu dal. Uh-huh. gën a gën a gën a entraîné. Mhm. gën a toog mhm. gën a gën a gëm boppam. ok gën a respecté ay magam respecté ay entraîneur am. Mhm. respecté ay supporter am ak ay fansam. ok mu romb nit ñi taxaw jàmm sante teg ñoom nuyu leen. d'accord jox leen cër wàccee boppam ndax ku wàccee sa bopp yàlla wàcc yàlla yëkkati la. d'accord gën xool fi muy teg tànkam. gën xool ñi muy àndal. bu ko mënal dara mu ànd ak yow koo xam ne da koy tardeel mhm. da ko yóbbu du ko apporteel dara mu tegee ko ni degee man loolu mooy sama philosophie te loolu laa koy digal ok xam ni mën na la avancer ba pare seeni i jikko bokk na muy jiko ju baax da ngay ànd ak moom koo xam ne amul la benn njëriñ du nit ku lay jëmale kanam da nga koy tegee nee d'accord ndax tey ëllëg buñ nee diw baax na mhm. mbokk yaa ko wax waaye buñ nee diw bon na àdduna bi yëpp ay maase di la xalaat vraiment te loolu da nga koy moytu mais jantal booy la ndaanaan la te di ngeen ko dégg fu sori carrière la am nag carrière bi mu am. Uh-huh. incha allahu rabi xam naa dina bett ñëpp mais xaaral tuuti may leen ko tuuti ngeen xam ni. Uh-huh. carrière expérience la yor yorul carrière mbër. d'accord. carrière mbër dafa am ak carrière expérience. d'accord. ngay doxee expérience nag ba romb say morom moo gën nga nekk fenn di fa tardel sa bopp. ok. wax laa la wax nag. ok. waaw incha allah. acca ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. jaajëfete. dégg naa leen Aïcha merci beaucoup. jaajëf Aïcha c'était Boucher Ketchup le phénomène euh, moom nañu moom nañu doon waxal nii par téléphone mu doon def ay CD yu yu rafet vraiment ci ki nga xam ni moom noonu dalal tey mu bu bu euh, ñu gis euh, témoignage bu bu bu bu bu bu am solo bi nga xam ni ki nga xam ni moo di Boucher Ketchup def na ko ci yow. waaw loolu loolu lu mu lay def. waaw témoignage bu mu def rek muy maanaam dafa def lu loo xamante nii xam nga lu mu xamul bu ak li nga xam ne nii moo nekk ci man loolu ak la wax ci man parce mhm. que Serigne Touba mu nekk ni koo xam te maanaam su ma frère la mhm. xam nga comme sànq li ma la wax rek maanaam léegi maanaam niveau yi dafa war a changé te mu ngi changé ndànk-ndànk waaw te parce que oto rek moom manqué ok saa ni ma la wax ni ma waxee ni oto kese moom manqué de waaw xam ma rek ah maanaam bu si dama toll niveau boobu. waaw xam dama toll benn niveau bi mais dama maanaam dama oto rek moom manqué ba pare dama ko dégg mu wax bu garaaw. Uh-huh. waaw ci côté jàppale bi. Uh-huh. waaw te parce que imagine toi gu bëri neuf combats def sept victoire ci xale bu ndaw. waaw xam nga toll toll foo xamante ne nii xam nga raw say maas. xam nga raw say morom. xam nga rek maanaam sénégalais yi bi may enjoy. Mm-hmm. kon yoon la ma dépassé niveau bi ma nekk. Mm-hmm. xam nga ku si mel ni Boucher tamit maa ngi koy bu baax nekk nit ku baax tey jii su ma demee xam ay Matar Subatel. tey jii su ma ñooñ su ma demee ba xam leen ba xam seen kër di fa demal sam bopp eh. xam nga tey jii loolu la dafa kii du ma boole ak ay Pape Diouf keroog dafa ma woo berki dem na ma Pape Diouf yow rek lay wër te loolu la dafa rëy yow yow Sénégal yow yow yow wër yow Sénégal lay wër eh, Pape Diouf Pape Diouf da wër keneen ak da lay wër comme ni ko Boucher waxee rek mm-hmm. xam naa ni eh, des na tuuti ci kanam dinañu xam ki toog nii dinañu xam mooy kan acca eh, dañuy wéyale dañuy wéyale ci li nga xam ni moo di émission bi nga xam nga ni tey grand buzz moom bu ñu koy wax eh, bu ñu dalalee ki nga xam ni moo di bu dalal nañu ku ñu war a dalal mais également dalal nañu mm-hmm. ndaanaan tey ndaanaan nañu toogal ci plateau bi xam ni maanaam am jàmm gi mu am jàmm ak firi donner du euh, xam ngeen ni bu baax baax euh, si nous sommes là euh, c'est juste pour vous servir aja mi ngi noonu Boucher dafa mel ni c'est open press bi mujj nii am na lu ci Boucher def waaw maanaam soo gisee ma defoon open press ñuy waaj combat bi le vingt cinq juillet mu yàqu xam nga ñu jàppaat le 10 octobre ñi ñi mbëri di wàcc xam nga gars yi état subvention wul mbëri mhm. xam nga ma dégg état di subvention ay artistes mhm. xam nga tëb mbëri ay basketteur mm-hmm. xam nga te ñun maanaam lamb facteur de développement la lamb maanaam dafa bok ci loo xam te ni luy dundal Sénégal la te parce que yow yow xoolal ñaata junni doomu adama aadama ñooy suivre lamb waaw xam nga kon lamb maanaam dafa bokk ci Sénégal mm-hmm. kon tey président fu mu demee bay recevoir ay artistes mm-hmm. di recevoir ay joueurs ay basketteur tëb mbëri loolu damay ñaan yàlla rek bii di ñëwaat maanaam yi nañ nañuy bàyyi mbëree xel xam lan bi di ñëwaat maanaam ñaanuñu yàlla sax loolu ñëwati fi corona <laughs> xam nga mais yu mel noonu bu ñëwee maanaam ñun ñu dugg ci suñu xaalis ñàkk. xam nga ñu ñëwaat jàppaat làmb ji promoteur yi doolu lu ñu xaalis maanaam pour leneen état subvention wul mbëri te moo yàq jour woowu làmb ji xam nga jour nga waaj la vingt cinq juillet ñu yàq làmb ji ne corona seve d'ordre kenn subventionné wu leen kenn subvention ñu promoteur bi joxuñu xaalis ñoo jëlaat suñu moyen bopp moo tax moom laa lay wax ne la su dul woon buuse maanaam day ñaaw. waaw tey buuse juróom noonu ba affaire yi métti trop. Mm-hmm. ñuy waajaar la 10 octobre mu yëkkati xaalis bëri yëkkati 300000 jox ma ko. Mm-hmm. ma defaat open press. Mhm. xam nga moo loolu mu metti trop. Euh, de passage mon ami mon très cher mon ami très maa ngi lay kontaane bu baax a baax. voilà euh, mbokkum ndayu Pape Diouf mais également mbokkum ndayu Umar Sow. maa ngi lay kontaane di la jaajëfal bu baax a baax. ci àndandoo bi yow vraiment. Euh, Sénégalais yi Sénégal dañ laa dese xam mais comme ni nga ko waxee rek yow bu la Sénégalais ni ngay doxee. dina gën a dina gën a yemb mais également dina gën a dox mais doxalal noonu la fi nga teg. tànk boobu moom dafa nekk nit koo xam maanaam moom fàttewul démb mhm. te parce que géejawaay maanaam dafa yaatu mhm. te lépp géejawaay la xewee marché njaareem mhm. maanaam amoon siis jàpp marché njaareem mhm. bàyyi laay xam nga mhm. lépp fa la xewee tey jii mbër yi ngay dégg yu bëri ma la sam waaye tey ay saako joor gis nga saako joor nekkoon ndaanaan ndeysaan da ko ñaanal yàlla fëgg boppam maanaam ñun ñëpp fa lañ génnee buuse fa la nekkoon di jaay yàpp si marché bi ñu ko doon dund nii xam nga muy yor kii X9 benn moto X9 temps ñu ngi ne ba mu amulee dara maan laa lay wax mais saa mais saa mais fàttewul yow ñaari téléphone ngay doxantoo waaw ñaari téléphone laay doxantoo su mel ne buusa moom laa la berki démb la ma woo jëndal ma téléphone bi ah. xam nga kon loolu moo lay wax ne maanaam Bou Siteu war na dépasser yenn niveau yi. xam nga berki démb la ma jëndal téléphone bi daal loolu maanaam dama war a yor ay dix téléphones. xoolal Balla Gaye 2 keroog dem gàlla mu yor ay sept bu sonné bii coupé benn sonné bii jël man dama toll naa foofu. waaw waaw toll naa fu man tollatuma fu may yore ay benn téléphone. waaw tollatuma fu may yore ay benn téléphone. kon buusa dama koy sant bu baax ndax lii dafa rëy. Mm-hmm. xam nga nga gis xale boo xam ne nekk ci yoon. waa géejewaay. sa diggante ak waa niveau bi di changé niveau baa ngi changé waaw sama ma diggante ma waa géej boo jugee banlieue bi yëpp jóg waaw su ma jugee maanaam man international man su may jóg waa géej waa kese duñ jóg ku si mel ni waa Malika waa benn barak mm. ku si mel ni ñoom lampu zënd sama gars yi nekk foofu ku si mm. mel ni ñoom wëz mm. xam nga ak mafiyaam bi Baye Fall yi waa benn barak di bëggee ñoom abu sita bu baax gars yi xool nga dem jaxaay plan jaxaay ku si mel ni sama mafia maanaam dafa bëri ay mafia ay Kër Masaar xam nga mais loo defal nit nit ñi loo defal nit ñi ba nit ñi ay benn taleeg fépp loolu defal nit ñi ba noonu ba ba ñi ba nit ñi waaw muy maanaam doon Baay Faal maanaam mag lu mu moom nga jox ko ko xale lu mu moom nga jox ko ko maanaam dundu jàmm jox maanaam di bëggee ñëpp daal sa diggante ak Siteu doon Baay Faal tamit waaw sama diggante ak waa jàmm kan waaw waaw sama diggante maa Siteu muy mu nekk loo xam ne maanaam démb la ndeysaan boobu bu Siteu sax bëreegul aran waaw maanaam muy xewal di am combat ay moog Zarko yi yooyu noonu maanaam boobu duggaguma woon ci làmb Siteu Zarko tur turu bu Siteu bi fan la jógee waaw ah, turu bu Siteu bi fu mu jógee muy maanaam ñu ma daan duróoleeg Siteu ok xam nga rek ma nga daan toppandoo di daan takk ay jaaj yi comme comme maanaam maanaam ay jamono village moom am na photo bu ma la ko waxee da nga naan kii Siteu la du Siteu de man la de <laughs> mais am na photo yoo xam bu ma la ko génnoon tey da nga naan Siteu maanaam di ko daan ko roy xam nga rek yaaga tarbiwu eh. yaa ma gën a xam xamara mu daan xew la fu nekk may ma koy demal ay signature am boo gisee combat moo Zarko signature bi bi amoon Fatick eh. dëkk Macky Sall maa ngi fa woon ça est-ce que yaa ngi xalaat dugg dugg est-ce que est mi ngi xalaat dugg fi nga xam ne moo di MMA waaw MMA parce que man sport boobu man sax laa gën a yàqamtee dugg eh. te parce que sport boobu dafa nekk sport boo xam sport jàmbaar la te Bou Siteu koo xam xam ne Bou Siteu jàmbaar la parce que dama mën xeex yooyu man dama mën xeexu MMA xeexu waga yooyu noonu dóor la bu kaawte man dama mën xeexu kaawte parce que man ba ma nekkee booy su may xeex dama dama lay bu ñuy xeex dama da ngay kaawte force dama lay dóor ba nga kaawte mais mais mais mais man loolu dama ko mën mais xam naa ni koŋ aussi loo loo la waa xam nga MMA moom yooyu yëpp si la bokk koŋ kottu prince parce que dama gis bi nga Malick Ndiaye Malick Ndiaye 37 fu bi nga ko daanee noonu ba mu daanu. waaw am nga benn dóor boo ko dóor. waaw non loolu koŋ la te parce que xam nga lu tax ma koŋ ko maanaam Malick Ndiaye dafa doon génn rek naan Bou Siteu boobu dama koy linjaa. xam nga xam nga rek nee na daf may linjaa xam nga yaa doon dégg loolu. signature yi mu naan kii rek. man nag affaire daf ma ay ree te parce que man li ma def ci milieu mhm. te parce que man dama jaar ci milieu chaque jour ma wax ko nekkul loo xam te ne nii ba tey dama koy dund mais loolu démb la woon maanaam lu ñu naan xale toll ci def ko waaw bu weesoo après bàyyi nga ko tey jii nii man tey jii xam naa loo xam te nii li yoon di tere xam naa ko bu baax a baax a xam naa bu baax man du dof kon maanaam kon loolu démb la waaw maanaam soo déggee man damay jaar dama jaar ci millier maanaam dama jaar ci affaire jàmbaar waaw mais nag damay dégg ñoo xam ne dama naan damay jaar ci milieu am yoon xam may commentaire yi xam naa dañuy jàpp ne Bou Siteu mënul lire xam nga moo loolu damay yesaay moo loolu damay ah, école mën nga lire mën naa lire mais am na ñoo xam ne dañuy jàpp ne Bou Siteu mënul lire ñuy bind si commentaire lu leen neex jaar nga école jaar naa école man franco arabe laa doon jàng ok ok waaw man dama mën a lire ok waaw mais bind rek laa mënul mais mun naa lire ok xam nga man loo ma tegal tey ma lire ko léegi li sama ginnaaw nii liiral ma ko lii sama lii mooy Dakar net comme Eh, B Sénégal. Sénégal 7. comme xam nga www Sénégal Sénégal 7 com xam nga dama mën a lire. xam man gaynde laa ndaanaan laa. waaw xam nga rek. loolu la woon moo tax sax xam nga rek combat bi moo la moom noonu demee. mais mais parce que nga jàkkaaroo benn jàmbaaraan ko dama lay linjaa mel ni benn benn tapet ngay linjaa. moo tax ma éliminer ko dóor ko dóori mètre daan ko ba pare jug dóor may ko benn kong bu ndaw. xam nga rek. maanaam dama bëgg maanaam a combat bu jeexee bu koy seetaan mu xam ne Bou Siteu mii ko daf maa éliminé te parce que man loolu moom mu ñor ci combat bi dama ko bëggoon humilier waaw maanaam maanaam bu koy seetaan dina xam ne booy bi ka daf may humilier daf ma daan ba pare koŋ ma xam loolu moom ku la ko def maanaam daan la ba pare sëral la suuf xam nga maanaam ay temps xeex da ngay xeex sa morom góor xeex daanal ko xam nga sëlam ko suuf léegi bu ñu jugee ak kanam nu muy mel ni bukki yooyu xam nga mooy loolu dëgg boo xoolee sax boo mu jugee kanam gi yëpp a takk suuf maanaam waaw moo loolu. je vous rappelle toujours que. Euh, nous sommes sur Dakarnet, la télévision qui a l'habitude de camper les décors merveilleusement bien partout Sénégal. vous avez raison, et même la raison a sa raison que la raison ne connaît pas. Euh, vous êtes sur Dakarnet, hein. Euh, télé nga xam ni il est au de toutes les générations. Euh, je vous rappelle que je vous donne rendez-vous également ce 24 décembre foofu nga xam ni moo di ci phase de ñi ànd ci ak nga xam ni moo son Altesse Royale ci euh, concert boo xam te ni 100 pour cent live lay doon mais concert boo xam ne di ngeen gis di ngeen mës a gis foofee ca ca ca doomi Fass Gorgé doomi Gueule Tapée doomi Colobane kooku nga xam ne moo son Altesse Royale le PDG. Mm-hmm. di xam kaan seen li ngeen di jox rendez-vous foofee nga xam ni moo xam naa ne sax boo cité faaw ma invité ko waaw dama loolu man déggoo la léegi man maa ngi ci léegi man maanaam damay léegi damay dund sow biis. même bu dul làmb sax ku la soxla ci ci ci ci con ci Boucher lay jaar. waaw ci Boucher ngay jaar. man léegi sama conseil bi ma la bëgg invité nag. waaw da ngay woo Boucher rek comme ni nga ko woowee woon léegi boo ko woowee rek naas day day rafet. parce que Serigne Touba Mbacke maanaam affaire du xaalis maanaam comme bul xalaat xaalis man Bou Siteu Baye Fall ma lay wax ne maanaam man képp ku ma soxlaati dafa am fooy jaar voilà maanaam Bou Siteu léegi dafa am buntu nekkatul Bou Siteu même porte kii comme yu passé woon ay 2017 ak ay 2 millions yooyu. d' accord loolu wax d' accord accord. Mm. de passage di jaaree sama waa ji nga xam ni la moom it ah euh, mbokkum ndayu buusite maa ngi koy kontaanee. bu baax a baax borom daaru. <laughs> waaw borom daaru borom daaru maa ngi lay wax laasum. ah kenn du moom. waaw borom daaru alliance laasum. daa mel ni sa waay la. nante la. ah kii maanaam maa moom la. moom borom daaru. parce que Serigne waa di bëgg raxam mbër la. ah bon waaw ñu koy wax guy gi numéro 2 bu Caaroy ndaanaan na ngi noonu ndeysaan mais man xamul tax man waa lamb yi bi nañ gëstu waa côté boobu Caaroy am na ay ndaanaan yu fa nekk ay ku ci mel ni ñoom caat ok parce que arxuraanu karim ajam di ko kontaane bu baax a baax moom borom daaru ak ak euh, guy gi 2 ah waaw guy gi mooy raqam guy gi 2 mbër la waaw acca di leen wax ni rek eh, eh, di yem fii plateau bi ak Bou Siteu du yem fii mhm. maa ngi leen di wax ni eh, dama koy topp xam ngeen ni tey plateau la boo xamante ni dañ ko amal ngir waxtaan ak moom mhm. daanaka dañ ko amal ngir am lu ñu doon teg loo xamante ni spécial lay doon foofee nga xam ni moo di géejawaay banlieue bi yëpp nañ ko wàcc le 21 novembre bi ñu ne incha allah waa Dakar net dañu fas yéene déplacé wu dem foofee nga xam ne moo di koñu buus yi def fekk ko fi def ak moom émission boo xam ne mosu ko def ci àdduna daal di ci ànd ak ki nga xam euh, maa ngi lay wax ni waajal bu baax a baax a baax bu laajee togg anjeeg yëpp lañ koy def daal di ñëw euh, ànd ak waa Dakar net daal di def émission bu spéciale émission boo xam ne masta am ñun euh, nii rek nañ fi nekk à chaque fois di jéem a def loo xam ni kenn defu ko wala sax buñ ko defee du bëri mm. saay dafa mel temps xale yi topp nan la de waaw gis nga xam nga rek temps yi maanaam man maa xew xam nga da ngay xew ba pare laq sa ruq. ma noonu la demee gis nga boobu ba léegi gis naa génn. mais gis naa dafa ay sorti parce que ba mu bëree ba léegi. laqatu woon nekk samay ruq. te parce que bu si da buy génn dafa am neneen nu war a génnee. niveau bi xaw a changé. te gis naa ne mu ngi changé. mais ku ñu gis sax tey plateau bi nga toog nii. waaw ah? gis nga tey xoolal fii ma ñëw rek. waaw rek maari day taale yi. xam nga fii nekk foo xam maanaam fu yàññ la. kilim bi dina upp nii parce que alxuraanu karim gisoo en face moo loolu armeel yi armeel di ñaanal tamit ñi tëdd si armeel yi yàlla yërëm leen xaaral leen si àjjana firdawsi yi amiin amiin parce que ku si mel suma papa rek ndeysaan con bañ koy denc rek maa ngi fi woon ndeysaan jour ma tuur ay xewal parce que da ngay dajek ñoo xam te ne ay magum jëmm ndeysaan di tuur xewal mu leneen papa Thion kon moom am na lu mu liggéey Sénégal uh-huh. waaw kon moom su ma ñëwee ba fii nag nga xam uh-huh. dañ ko fee denc tam man bañ koy denc maa ngi fi woon uh-huh. kon su ma ñëwee ba fii dama koy ñaanal ba may ñëw rek avant maa dugg dóor ay xul uxee yu dëgër ñaanal papa Thione ak ñi fi tëdd ñëpp ñaanal yàlla yoroon ndax parce que man dama bëgg Wally Seck xam nga Wally Seck maanaam Baye Fall la moo tax su ma déggee sax ñenn di génn di ko sànni cadre damay xam ne maanaam ñii xamuñu parce que Wally Seck dafa nekk nit koo xam sa biigee mooy sa biigee mooy sa biigee waaw xam nga <laughs> maanaam Wally Seck dafa nekk koo xam barke yàlla li ma la wax ni du ay jaaxaan Wally la góor yàlla la gis nañ social yi muy def. Uh-huh. am nga maa ngi gëm mais nag nit doo ñàkk noon uh-huh. maanaam nit da ngay am adversaire dama koy nay jàpp maanaam. na xam ne maanaam Sénégal yëpp si ginnaawam. Uh-huh. waaw maanaam nit da ngay am adversaire yoo xam xam rek dañuy am ñi moo la ñuy sànni ay trac. mais Wally Seck nit ku baax la moo Pape Diouf. di leen ñaanal yàlla na yàlla defal jàmm. amiin waaw Pape Diouf di nuyu tamit bébé baas. ok waaw tey jii gis nga bébé baas moom laa lay wax tey su ma demee bay xamante ay bébé baas. à cause de buuse la mhm. xam nga di ñaanal Pape Diouf yàlla defal ko jàmm di ko mhm. ñaanal moo Waly sek mhm. yàlla na leen yàlla defal jàmm ba lépp lu ñu bëgg ci aar bi yàlla defal leen ko aji yow it ñu ngi lay ñaanal jàmm waaw man ñu ngi may man man man man déglu man àdduna ak may ñaanal ku ci mel ne Abdou Ndama Thiam ki Pape Diouf way moo man su ma bokkee si Pape dama war man moo loolo ku ci mel ni Omar saw ku ci mel ni waaw Omar Sow Abdou Ndama Thiam waaw boto Sénégal mi Pape Diouf doon way ndeysaan dafa may ñaanal. ay eh, waay parce que seen damay dem ba joxe sax combat damay dem ba joxe di nuyu Pa Senghor bu baax. muy mu ngi dëkkee foofu moo kër Abdou Ndama Thiam ñoo ñoo jëlloo. Eh, maam ñooñu dañ may ñaanal. Uh-huh. damay dem ba joxe ñu may ñaanal. waaw ne ma Sénégal niñ la dégg kon Abdou Ndama Thiam ma lay ñaanal yàlla yàggal la fi yàgg sama papa Senghor. Uh-huh. maa ni ñaanal bu baax a baax. mais temps yi moom ah, temps yi vraiment da nga naka di jot temps yi ah, euh, émission bi maanaam ba ma gis nga rek may ah. woo gis nga ma la wax rek. mooy maanaam léegi bu Siteu léegi nekkutul la ngay woo rek mu biis rek ñëw. te parce que gis nga dafa am fooy jaar. gis nga tey jii buuse. tey jii lii bu amee yëpp buuse la. nga ni ma waaw mais tamit du ma gis succès de man Baye Fall laa de. waaw man du gis succès man nii rek laa mel. dundoo succès quoi waaw mais yenn saa damay wax a wax sànni xeer xam nga. mooy loolu ndax ñi may. seetaan da ngay wax bégal sénégalais yi. waaw pour wax pour bégal sénégalais yi. te parce que man fépp ñoo may bégee. Mm-hmm. ku si mel ni ñoom gars yi nekk Casamance ak. Mm-hmm. xam nga Joal Fadiouth. xam nga gaa yi dañ may béggee ku si mel ni ñoom Rama ok waaw Rama borom ci dañ ciy wax tuuti demee ci wàllum politique hmm. tey gis na ni ki nga xam ni moo di Ousmane Sonko ak Barthélemy Diaz hmm. démb génnoon nañu euh, doon euh, euh, Barthélemy convoqué woon nañ ko démb mu doon wuy ji ah. yàlla dogal yegguñu ba hmm. ba ay coow xaw fi jóg ak yooyu ban message ngay lancé ñooñu waaw maanaam gis nga comme li ngay wax maanaam dañ doon coow wala dañu demee noonu waaw euh, dañu dañu dañu convoqué Barthélemy bi ñu ko convoqué mm. mu doon wuy ji si yoon bi nag amoon ay teq-teq ba ay coow jib fekk yooyu noonu dëgg la mooy maanaam réew Sénégal maanaam réew jàmm la tey yaa ngi nii man maanaam maa ngi dund si beneen level bu bokkul ak level boobu waaw moo la gis nga tey jii yëguma ko mais dañuy dañuy lancé message rek mm-hmm. di wax ne maanaam Sénégal Sénégal maanaam réew jàmm la mm-hmm. waaw maanaam tey jii ana ñoom Senghor xam nga ay ay Abdou Diouf ñoo ñëpp tey jii nekkoon nañ ci yoroon nañ nguur mhm. mais maanaam xëccoo nguur waru tax mala sam waaye xam nga ñiy defante yi di dóorante ay bal xam nga mhm. maanaam Sénégal war na dépassé niveau boobu maanaam mhm. instant yi dañoo war a xool ni Sénégal demee ci kanam mais tey boo xoolee yow Sénégal instant yi dafa gën a wàcc te parce que maa ngi dégg ay yokk nañ ceeb ak yokku ay yii xam nga di yokku loo xamante ni mel ni yow man la waay waaye da nga jàppal Sénégal ay rànk ci li fi xewoon ci osan yeeg yooyu mais osan yi ceeb yooyu ñuy gars di jël mais ceeb yooyu dafa nekk ceeb yoo xam maanaam gars yi dañu ko di jël te parce que boo xoolee paa yeeg ku nekk di dugg di jël mu leneen Sénégal dafa metti ñu ñëw ñoo xiifoon jamono jooju mais tey gis nga Sénégal moo tax gis nga te loolu noonu maanaam ceeb yooyu noonu soo gisee man la Sénégal dañ ko war a jël maanaam yow imagine toi ay nit ñëw dugg dajji osan osan jàmbur xam nga di nar a taal osan bi mais imagine toi li ma lay wax. Uh-huh. nga nar a taal loo xamante ni yow tey jii moo moo ko. Uh-huh. mais baax na maire yi bàyyi ku nekk dugg di jël. <laughs> moo gën imagine toi bu ñu ko taaloon tamit ceeb bi day yàqu ak diwlin yeeg yooyu maire yi te yow osan boo xamee osan nga xam ne osan yu neex ñoo fa nekk. donc uh-huh. frigo yi rek boo ko lu ne nga fay fekk ay hamburger <laughs> ay lu ne ngay fekk si biir kii osan yi. kon tey moo loolu na gaay wàññi dund bi daal. xam nga am na yeneen xam boo koy ñor di boo koy xëcc nii sax di yokk di yokk ay diwlin yokk ceeb day mel ni sax yow osan yi gars daaj woon nga bëgg a récupérer waat affaire yi tax du noonu. d'accord waaw maanaam dafa metti donc yow noonu maanaam dafa war a dépasser niveau bi ok noonu nga ko gisee quoi. waaw maanaam noonu dafa war a dépasser niveau bi du ma la nëbbu de Sénégal dafa metti de. instant ah, ah. yii nii gars yi ñoo ne ceel nii du dund rek ñii di taqaleen mooy loolu. Mm-hmm. mais Sénégal dafa metti mm-hmm. parce que Serigne Touba Mbacke liggéey amul xool ñu nekk si prison yi corona ba léegi mënoo fa yóbbu bool. d'accord xam nga mënoo fa yóbbu bool tey jii ñuy dund lu métti too am visite. seet say nit yi nekk si prison bi. xam nga te foofu tey jii man su may samay mbokk yu bëree nga fa. xam nga di tëdd ay kaso yoo xamante ne xamaguñ kañ lay jeex. xam nga. yenn saa sax ma la day am ay xam nga moo loolu. mais imagine a nga jàpp nit tamit xam nga ñëw futtiloo ko xam nga ba mu set. nga palpe ko xool fépp. sooy soog a dugg si prison bi dañ lay jàpp xam nga futti la ba nga set wicc ñu dugal la nga xëy ginnaaw suba jot nga ñëw gaay na la yàmbaa bi yaa ko moom jàpp la defeere waat la tëjaat la xam nga tëjaat la pen boo xamante ne nii mën na la sam waay xam nga ah nañuy dawal yërmande waaw ko fa war a dugal loolu loolu maanaam loolu noonu la ñu war a lijjanti keroog maa ngi seetaan Dof Nday sax di wax lu mel noon mais day wax loo xam te ne Sénégal bu ñu déglu loolu rek naan ay kii dafa sañ wax wala dara non non ñi nga xam te ni ñoom ñoo yelloo loolu ñoom ñoo moo wax jooju dañoo war a dugg ñu xoolaat bu baax te parce que ñi fa am ay dépayage dafa bëri samay gaa yi fa am ay dépayage ñoo xam deux ans lañ leen tëjoon tey jii ñu takkalaat leen leen yéen ñoom ñoo yoroon yàmbaa yoo xam ne si biir prison bi la nekk mais yàmbaa yoo la dugal si koo xam te ba mu dugg da nga ko futti ba set xam nga tey jii nga ñëw ay action rek xam nga moo loolu parce que kenn mënu koo wax gaa yi ñu ngi dund lu metti foofu te état bi maanaam dañoo war a gesuwaat gesu ñu nekk si prison yi xam nga ñu da nga da ngay gis gars yi samay bëre yu bëri instant dañu leen a tëjaat ay trois ans ay deux ans maanaam pen si kaw pen si ay loo xamante nii xam nga ay yaa yoroon lii yàmbaa boo xamante ni te gars yi duñ yëg duñ tën xam nga rek waaw maanaam prison bi dama bëgg gars yi di gëstuwaat ñu nekk si prison yi dafa metti waaw ku si mel ni camp pénal soxna yi fa nekk waaw suñu yaaboo yi nga fa nekk di tëdd ay kaso yoo xamante ne xamuñu kañ lay jeex uh-huh. waaw di wax ne président daal xam nga nag gëstuwaat justice waaw maanaam nañ dawal yërmande waaw maanaam soxna yi sonn nañ barke Serigne waa nag nekk campénal chaque jour dañ may bind message barke yàlla am ñoo xamante ne ndeysaan xam nga rek kenn mënul wax lépp. acca mais lekk yi demeewul noonu. ndeysaan foofu ci camp la da lay bind message Serigne Touba Mbacke donc donc prison yi donc. prison yi prison yi fépp metti. non fépp metti donc ban message ngay lancé ak Serigne euh, Touba ku si mel sama gar yoo xam te ne ay nit ñu baax lañ bëggal ma seen bopp ku si mel ne chef Issa mhm. waaw ñoom ñi ngi ba cent mètres ak chef Sidibé mhm. waaw maanaam ñoom dañoo nekk ay yoo xam te ne maanaam ñëpp a leen di seede loolu mhm. boo fa ñëwoon ba ñibbi sax boo toogee da nga leen di ñaanal te parce que bu yow maanaam nekk nañ ay gar yoo xam ne nekk ñu fa di sonal ay jelmaan te parce yow nit nga jàpp ko tëj ko kaso yoo xam ba pare di ko noot di ko jàpp di ko bu defee dara wala wala mu ay coow seytaana am nga jàpp génnee xam nga sotti ko ndox. en tout cas gërëngaloo ko si ah, terrain bi dóor ko dóori met. en tout cas c'est dur te ñooñu bokkuñu si ñuy def loolu. en tout cas c'est dur métti na lool ñu ngi ñu ngi leen di ñu ngi leen di masawu coono foofee ñu ne te xam ni rek euh, euh, ñu gën a jàpp rek gën a dëgër te xam ni foofu jombul kenn Euh, bërëb la boo xamante ni euh, mbon dugalu fa kenn mais également baax xañu kenn ba mu tax duñ fa dugg ak lu ci mën a am rek xam leen ni euh, dafa waroon am ci cër àdduna da fa waroon jaar ñoo bu ngeen génnee yàlla suñu borom nekkal nekk nekk nekk nekkin boo xamante ni dootu leen def lu leen fa dugal mhm. dootu leen am njuumte leen fa dugal ñu suis de tout cœur avec vous yéen ñoo ñi nga xam yéen nekk ci prison bi mhm. vraiment c'est en tout cas ak ñu mën a ne ak lu ñu mën a def ak lu ñu mën a xewle rek xam leen ni suñu xel di jug si yéen suñu xol du jug si yéen

Euh, te dafa am benn question boo xamante ne ku fi ma sa toog. waaw dina la ko laaj. ndeysaan. Euh, léegi. Mhm. Bou Siteu am na soxna wala amagul soxna. waaw man am naa soxna. Mhm. am naa soxna am benn tuut tànk. ndeysaan. waaw su ma loolu sama tout tànk ku si mel ne Alaaji Naar. Mhm. nekk nit ku baax. parce que Arxam moom laa tuddee sama doom. ndeysaan waaw naa naar maa ngi koy sant bu baax waram géej waaye waram tiwaan pël. donc kii nag. donc Bou Siteu mi donc yaakaar naa ni Bou Siteu mi moo laaj a jàppale comme jàppale. Mhm. parce que euh, responsable la. moom teel na responsabiliser li nga xam ni moo di dundam. Euh, bokkul ak euh, ku mel ni Malick. wala ku mel ni Yas wala ku mel ni Bou Kounta euh, ñoom euh, ay célibataire nañ te sax ah. d'ailleurs tey jour bi yow loo wax léegi Bou Kounta Bou Kounta ko man Bou Kounta laa tudd yee man Bou Kounta laa euh, tudd Bou Kounta bi ne fii nag yéen ñaar bokk koñ ah waaw léegi dafa jóge mi ngi naan ma bu ñëwee ni ko fansam laa également ñoo bokk benn koñ bu pare sama turandoo la dama lay jox numéro boo noppee ngeen waaw gis nga dafa loolu kooku sama turandoo la Eh. man ku sell lañ ma tuddee di bëggee waa Ndiassane bu baax a baax ndeysaan di bëggee seen bët Bekaay Kunta yée Mbay mi ne chaque jour dañuy daje gàmmu Ndiassane ndeysaan Bekaay Mbay mi ngay gis joomu Bantamba eh. waaw moom dañuy daje Ndiassane lu bëri man bu kon danañ ma tudde kon war naa dem di siyaare ji Ndiassane waaw kon di nuyu waa Ndiassane bu baax di nuyu tamit Cheikh Bou uh-huh. waaw Cheikh Bou Kunta bu uh-huh. Ndiassane tamit kii waa gis naa keroog bu ñu fa ñëwee berndar yeeg yëpp waaw Cheikh Bou maa ngi koy bégee bu baax a baax bu baax Cheikh Bou euh, comme ni mu ko waxee di bu baax a baax ki nga xam ni moo di LP di kontaane bu baax a baax ki nga xam ni moo di Thiané euh, maa ngi koy kontaane bu baax a baax mais hmm. également euh, di wax ni joyeux anniversaire joyeux anniversaire ah. à à à Rama maa ngi lay souhaiter a totale happy birthday encore hmm. une fois tout le bonheur du monde compte tes années sans pression vis ta vie à ta façon hmm. léegi nag Euh, maanaam waxtu bi xoj nañu. Ah, waaw daanaka émission bi jeex na. gaa yi ñuy signaler waxtu bi jot na euh, ñu bàyyi la mhm. nga tàggatoo. wala laataa ngay tàggatoo dafa am benn lu la war a laaj. waaw ngemb ngemb. Mhm. ngemb nan nga koy waxee si français. ngemb. waaw. ngemb koy waxee ci français. waaw ngemb. Euh, ngemb nan koy waxatee sax fàtte naa ko de. fàtte ko Senghor nan koy waxee ci français Senghor. Senghor ma xool je je kii je prendre lañ koy waxee je prendre la waaw je prendre je prendre mooy ngemb mooy mooy Senghor waaw léegi léegi ngemb ngemb ma xool ngeem ngeem dama xaw a fàtte ngeem mais Senghor moom sa prendre la <laughs> waaw ngeem ngeem moo loolu dama fàtte kii yàlla na sa jàmm yàgg dèjà ñu bàyyi rek ñu bàyyi nga nag di béggee waa Sénégal ñëpp di béggee tamit Zara xam naa Zara rek mu mooy seetaan ndeysaan di reetaan jawaru Cheikh Kouyaté nekk nit ku baax di laay keroog Cheikh Kouyaté dafa dafa woo daaw na moom ne ko waxal mbër am na ay kii boole naa ko soxna si Zara ñu dem ba Mermoz ginnaaw kër Macky Sall noonu kër Cheikh Kouyaté nekk kër goo xam ne maanaam kër gu masala eh. rek ba may bañ wàcce si oto bi maag dama moom xoolee kër gi eh, eh. kër goo xam ne lépp bant la ay bant ak verre armignon maanaam Cheikh Kouyaté daal yàlla ko yàlla defal jàmm ma dugg si kër gi nag maa rilay nga ma dugg ci kër gi xam nga rek kër goo xam ne ndeysaan bébé Fatima sax moo na ma toogal kër goo mm. ma duggee mënu ma toog kër goo xam ne masala maanaam ñun dañoo valeureux waaw ku ci mel ni Cheikh Kouyaté jabaram dafa valeureux waaw ku ci mel ni Bousse Ketchup xam nga maanaam ñooñu dañoo voleur ay voleur lañ. xam nga ku ci mel ne Abdou Aziz Ala Ndiaye ñooñu. maanaam ñooñu dañoo voleur. parce que Serigne Touba Mbacke bëggee gaa yëpp. di bëggee tamit ñi may jàppale ñëpp su may combat ak di bëggee su may waa koñ ku ci mel ne tamit kii Modou Faye entrepreneur la mais xool ci xaalisam lay génnee di di def ay social yu doy waar ku fa xew la dara mu jëndal la nag waaw kon ah. Modou Faye maa ngi koy sant ba di bégge Alioune Sall junior ah. ak ñi nekk Guédiawaye ñëpp maanaam ñi may doole ay bëy de ba maire Gunaas xam nga ay borom daaru suma doom yaay kii du ma ko fàtte mukk di béggee nante yëpp ay ñoom laay inoo ñoo xam ne ndeysaan maa ngi ñoom démb la ay ñanoor hmm. xam nga maanaam man du ma fàtte mais yenn saa da ngay nekk si émission xam nga moo aca di bëgg bu baax a baax ki nga xam ni moo di borom 27 43 euh, maa ngi lay bu baax a baax Serif Xasana mais également di ziare ki nga xam ni moo di Modou mbokkum ndayu ah Xasan euh, euh, ñu ngi lay kontaane bu baax a baax di kontaane bu baax a baax yéen ñi nga ni ku ci mel bu xarañ tamit waaw te mu dëkk fii parcelle Abdou Tall bu xarañ waaw mooy ak Daouda Mbow rek Abdou Tall bu xarañ maa ngi koy bëggee maam Cheikh xam nga gars yi nekk parcelle fii di bëggee gars yëpp waaw di bëggee international nag international Daouda Mbow maa lay bëggee bu baax baax di kontaan si mais di kontaane bu baax baax ki nga xam ni moo nekkoon ci réseau bi ah, euh, ba ba ba a yem kooku nga xam ni moo di Yaas ñu ngi si jàmm yàgg ki newoon ci son bi di nga xam ni moo di Malick maa ngi lay kontaane bu baax a baax yow it yàlla na si jàmm yàgg euh, tey nag gis ngeen suuf gi maanaam suuf gi laataa ñu ñëw suuf dañu ñëw ci kaw déjà euh, bu dee mën naa jóg saay jëlal ma ko nii man tamit suuf gi waaw waaw waaw suuf bi nu jël ko tey jàllaabe laa ñam ku si mel gis ngeen ko nii tey yëngati jàllaabe ne ma tey lii nga yóbbu émission tey jàllaabe bi nii ah. waaw Fatou Sarr moo ko jox di ko nuy bu baax aja gis ngeen ko gis ngeen ko bu baax a baax tey euh, euh, Neymar Couture foofee ca diwaanu Saint-Louis du Sénégal moo ñëw li yónnee ma ko ndeysaan li Neymar Couture Neymar Couture na war na ma ñawal Neymar Couture waaw man yii man dama war a du sol yii Neymar Couture waaw foofee ah, bu leen jàpp ne bu si ta rek du sol yii man dama dama war a niveau bi tey yow oh, xoolal li nga sol rek lii macha allah dafa taaru dafa yéeme Neymar Couture la mais man tamit sama jàllaabe bi dama bëgg nga xool ko mais mais tey jàllaabe laa sol gis ngeen jox daaru Soussir euh, euh, mooy 78 105 09 60 tey émission bi alaat daw mee ah, euh, Neymar Couture jaar ci kaw borom daaru Soussir jaar ci suuf ah, mbaxane bi ci kaw ki nga xam ni moo di DJ Ahmad jaar ci kaw dina ah, kontaan baax a baax waaw di kontaan si yow bu baax mais jàllaabi si jàllaabi bi waaw jàllaabi ku si mel ne Fatou Sarr ma ko jox tey tey émission bi da ngay génn foo xam mosoo fa génn. solal jàllaabe. waaw waaw mu ngi nii. ndeysaan jàllaabe la. waaw góore waay kon tey damay sant waa Géejawaay bu baax. nga di ma waaw di bëggee gars yi di bëggee nante yi. xam nga jàmbaar yi waaw émission bi jeex na mais maanaam dafa am ñoo xam te ne ndeysaan dañ may bëggee. mais émission bi bi jeex na. waaw mais jeex na kon tey sabari tey ñëw rek ma ne mbarak gun gun gun gun